victimes yi fi ne nii dañoo def nag dem nañ fu ne def nañ lu ne wax nañ lu ne fu ñu xalaat suñu instant yi suñu xalaat moo jeex mu dem nañ si maire maire waxuñu ñu leer gisee nañoo préfet fu ne dem nañ fi ndaxte depuis 2019 nga joxe 500000 ne location dañoo sonn ci loyer bi te fii lañ xam fii lañ màggee fii lañ yaroo. Euh, bi fi nekkee plus de 30 ans bi ñu fi jëlee waaw dañ ñu woon léegi da ngeen fiy jugeegul ñu ngeen luyeegul. boo leen luyeegum le temps que ñu dagg fii parce que état moo ko saisir si tubaab bi tubaab bu ñuy wax Paye Jean Claude Paye France la dëkk moom moo moon fii terrain bi yëpp Jean Claude Paye moom moo ko moonu léegi terrain bi 93 la woon. léegi bi mu amee pause 5 ans léegi état ñëw ni comme terrain bi dafa yàgg te depuis boobu léegi tubaab bi defu dara léegi état daf ko bëgg a léegi si lañ nekk si discussion yooyu entre ñoom ak Paye di yéeg ak wàcc. ñu jox ko defe délai bu courte bi délai bi jotee ñu ni ko dañ leen di saisir terrain bi yow dañ koy nangu finalement biñ ko nangoo ah waa mairie ànd seeg état du Sénégal léegi biñ ñëwee fekk ñu fi ñun si ñun ñi nga xam ñoo dëkkoon si kër ñu ne mairie kat ah état kat nangu na terrain bi mais dañ ko bëgg a jël xamagul nag lan lañ fiy def waaw mais yéen ñi ngeen xam ne yéen a fi nekk tamit bâtiment yi il faut dañ koy toj parce que dañ ko war a defar te bâtiment yi dafa màggee dañ koy toj ni après incha allahu rabi lu si mënti am dinañuy déggoo ñu dem ba maire maire nañu dinañ déggoo yéen ñëpp ah, adjoint maire boobu Boubacar Camara moo fi nekkoon moom mu ñu incha allahu rabi dinañ leen jàppale yéen daal en tout cas comme yéen fi nekk plus de trente ans ñun état ñun suñu suufu dëkk bi ñun ñun yoon may ñu sax ñu leen fiy jële di ko jox ñeneen depuis lors déggaatuñ leen gisaatuñ leen boo demee boo leen doo leen jot boo demee kër yi leen dafa génn soo demee si maire ko mën gis ne nañ fa mënuñu am un bon jour rek ñu jëxëy ñu def déguerpissement génn fi mécanicien fi commencé koo dagg def commencé koo borne biñ koy ñu dem ay explication mais mënuñu si wax dara lu leer benn explication bu finalement daal ñu ngi koy commencé borne dañoo sonn dañoo maar li ñu bëgg mooy ñu wax ñu lu leer ñu wax ñu wuñ mais comme dëgg nañ suñuy wax nañu woo wax ñu leer nañ fii. fii ñu dëkk nii tey àll la bari bukki lëndëm kiris du ndox du dara ku la fi doon may kër ak ay millions doo fi dëkk ñun rek ñu dëkk fi ak suñu waajur bu góor mbooleem kullukum kër gu fi taxaw ñun ñoo la fi jiitu ñu dëkk fii ne ci lëndëm gi ak coono gi cinq heures ngay tëdd parce que doo fi ñeme waaw depuis boobu ba tey daal wax dëgg yàlla sonn nañ torop fi nga xam ne fi lañ dëkk man mii de wax ak boobu ay trois ans laa am te léegi magum jëmm la am naa sax famille am naa njaboot ñu toog ba tey wax dëgg yàlla ñu jëlee la fi si noonu luye loola ngay tumuranke di sonn nga jékki-jékki dégg bor na nañ fi dagg nañ ko xamoo fooy ne xamoo foo féete gëstuwuñ la lijjantiwuñ la sonn nañ torop ay néew di dool lañ sa suñu fenn wax dëgg yàlla ñu ngi woote ndimbal di tàllal loxo àdduna yëpp dana ngeen def